fidèle internaute yi nga xamante ne nii yéen ñuy suivre tey ñu bugg a def taxaw seetlu ginnaaw bi nga xamante ne kii di la leader du Pastef di Ousmane Sonko daal dina seq ab ndaje mu mag ak ndaw yi partem bi nga xam ne moo di Pastef ndaw ñi ñuy ooye GPS ci biir ndaje moom taxaw seetlu bi nga xam ne moom lañ ci njëkk a def mooy Ousmane Sonko bi muy dem dafa dem en tant que président du parti Pastef donte nag premier ministre la mais dafa dem en tant que président du parti Pastef war a ak ay ndaw ñi nga xamante ne ñoo ko gunge ci projet bi lii tegtale lool bi muy dem gis nga otoom ba nga xam ne moom la yoroon oto bi nga xam ne moom la gaa yi tojoon bi muy nekk ci kujje gi oto boobu la yóbbu au lieu que mu yóbbu oto bi nga xamante ne oto bi ko état bi jox en tant que premier ministre oto ba gaa yi tojoon ca la muy benn jàngat. ñaareelu jàngat bi wax naag ndaw ñi ci tolluwaayu réew mi wax ñoom aussi ci fi nga xamante ne nii fa lañ bëgg yóbbi yëpp eh, jëmee réew mi wax na aussi ne tamit ne nit ñi bu ñu bu ñu déglu ñi nga xamante ne nii ñu ngi wax ne réew mi def nañ ci ñaar fi ñaari weer dañu war a changer situation yi wax na ne aussi euh, euh, lu ñu yàq ci fukki at ak ñaar kenn mënut ñëw di ko defar ci ñaari weer benn wax na ne aussi euh, euh, lépp loo xamante ne nii ay contrat minier la nañ ko renégocier waat mu dellusiwaat ci seen i ci seeni loxo waaye mu dellusiwaat ci loxoy Sénégal waaye loolu lim ci soxla mooy dafa soxla réew mi yëpp ànd ak moom gunge ko ci lool moom ak le président Bassirou Diomaye wax na aussi ci euh, li nga xamante ne nii aussi moom moo gaar li tax candidature am dem ba tax mu tudd loolu mu tudd jëmee ko ci la magistrature waaye bi ci gën a def bi gën def tey jii à la une mooy presse bi sonk Sonko nous attaque Ousmane Sonko gis naa sax <laughs> journal boobu di euh, journal bu le quotidien li li li le quotidien boobu nga xamante ne Babacar John koom maa ngi dégg mu naan ci bind un premier ministre bavard c'est boo xoolee quelque part li ci ëpp. ñi ci doon gesticuler wu di kaas ñi ci gën a kaas tey boo xoolee ñi ci gën a kaas tey mooy la presse ne daf leen attaqué mais kan moo commencé kan moo commencé attaque bi su fekkee dañuy wax dëgg rek presse bi moo njëkkee attaque bi presse bi day xëy suba ba ngoon jot bi Ousmane bi gars yi falo président Diomaye falo ba léegi kenn déggul xalifa Sall kenn déggul Amadou Ba kenn déggul ñeneen ñi nga xam ne ñu ñeneen ñi nga xamante ne noonu lañ doon ooyee ñoom la bokkaloon doon jongante ku ko ci attaqué. mais presse bi buñ xëy di bind ci moom te loolu moom wax na ko boo xoolee ci biir wax ji nee na dañ ko dañ ko doon attaqué depuis bi mu nekkee ci opposition bi mu faloo ñu ñu continuer ko mais attaques yi normal ku bëgg attaqué na attaqué donc presse bi aussi il faut nangu ne ñoom ñoo jël place opposition bi ñoom ñoo njëkk a opposé Ousmane Sonko dañ ko doon attaqué moom bi Ousmane Sonko nekk ci opposition bi Macky Sall nekk ci pouvoir bi ñuy xalamal Macky Sall di attaqué Sonko. léegi nag kañu doon xalamal nekkatu fi Macky Sall nekkatu fi Ousmane Sonko fi nekk te Ousmane Sonko du accepter yooyu ñu ne nañ continuer di leen attaque moom mu jàpp na loolu chantage la jàpp na ne jàpp na ne am na yoo xam ne suñ ko conti su continuer continuer attaque yenn ak attaque yoo xamante ne mu continuer buñ foogee ne loolu dina tax moom mu te ginnaaw dañuy sonal seen bopp moom jàpp na ne du ay attaque yenn wax yi ñooy tax moom mu del si ginnaaw mu del su ginnaaw kon xam leen ne ne kon am na ci ci une partie ci presse bi ñoo xamante ne nii dañ leen daan ger di la fa jox xaalis pour ngay tuddu nit di wax ci moom wala ngay tuddu nit di ko ŋàññ mais ñoom dama ko fi wax ay yooni yoon ne ñoom bi ñuy falu dañu falu te li ëpp digital bi lañ utiliser ñoom réseaux sociaux yi lañ doon utiliser musuñu fonder seen espoir ci presque classique bi musuñu cee fondé seen espoir falu nañ presque classique bi ñu ci bari nag yaakaar ne ñoom dañu war a continuer di ko attaquer every day all day moom attaque bi nee na bañu ko ku gis loo xamante ne Sonko def na ko muy naka sudut noonu mais bindal waaye dem taxaw fële ne diw diw dañ ko dañ ko dañ ko dàq Ousmane Sonko tax ñu dàq ko yaa ngi dégg parce que affaire affaire rébellion tax ñu oola laaj la mënoo leeral loolu quelque part moom la tax mu insister ci presse bi moom dafa dem ba gis ne press bi ñoom ñoo koy opposé c'est normal mais la presse elle-même aussi il faut ñoom ñu accepter ne ñoom dañuy opposé il faut ñu nangu loolu du presse bi yëpp mais une partie bi koy def il faut ñu nangu de ñoom dañ koy opposé ñoom ñoo jël place homme politique nga xam ne ñoo war a opposé ñoom ñoo jël place am depuis nag ba ñu faloo ba léegi sénégalais yi di ko gis donc moom mënutoon dem ci ndaje mi nga xam ne seqoon na ko ay ndawam te wax ak du wax ak presse bi dina dem aussi mun taw mun ta def ndaje moom ba mu jeex te yaatalu ci li nga xamante ne nii fa la gouvernement bi nga xam ne moom jiite na ko te président Bassirou Diomaye Faye tabb ko mu wax fi nga xam ne fa la bëgg a jëmale réew mi donc. Euh, euh, yenn yi si jëm boppam moom wax na ne carrément ku bugg a wax naka sudut noonu ku bugg wax naka sudut noonu wala képp ku d'accord ci Ousmane ci ci ci ci ci ci politique bi mu def ci mbéy mi ci càmm gi ci napp gi ah ci infrastructure attaquel ne d'accord ma ci mais na nekk débat d'idées mais defuloo loolu yow da ngay gis koo xamante ne ni au lieu que mu yem sax ci ci terrain politique bi toujours dama koy wax dañuy génn terrain politique bi dugg ci vie privée te foofu boo fa duggee nekk nga nekk na un chemin tellement glissant yow élève nga yem ci yow li nga xamante ne nii moom la la yoon may mooy moom liñ ko dënk moom en tant qu'homme politique am nga droit critiquer ko parce que ci réew mi nga bokk mais dangay génn foofu dugg ci vie privée dugg ci nit jàll ci famille jàll ci ndeyam jàll ci baayam mais loolu du politique loolu bu yàggee en lay def mooy li mu wax rek da ngay gis nit parce que bañ naa Ousmane sonk rek nga xëy ne xaar ma bindal ko nangam bu la waxee nga ne liberté de la presse yéen nii kat nag la presse il faut ñu xam ne ñoom aussi nekkuñu au-dessus des sénégalais parce que benn sénégalais bu waxee naka su dul noonu dañuy dal ci kawam presse bi am na droit critiquer jamono général de Gaulle mais mais la presse da doon attaquer général de le canard enchaîné musul bàyyi général de Gaulle da ko doon attaque mais nag fii ni ma gis ñoom ni ñuy ni ñuy doxee du ñuy yem ci li nga xam ne homme politique bi loolu lañ ko dënk dañuy génn terrain boobu dañuy génn terrain bi dugg ci vie privée dugg ci famille wax loo xamante ni yow méngoowut ak yow li nga xamante ne nii moom lañu dënk waa ji yi nga xamante ne moom mooy njiit mais loolu boo ko defee nag wala nga bind ci moom loo xamante ne leer na yow bu ñu indee bu ñu la tegee bu ñu la leeralal wax jooju mënoo ko leeral ça pose problème donc en fait su ah, euh, euh, euh, li fi réew mi toll il faut ñu nangu ne bu kenn wax naan Ousmane Sonko dafa attaqué presse bi presse bee ko njëkkee presse bi mu depuis depuis que moom mu nekk opposition laa la wax lu ne traité nañ ko waa kër waa kër Ousmane Sonko yeeg Pastef ñii ay salafiste lañ ay rebelle lañ. yaa ngi dégg ay force espéciale ay force occulte lu ne presse bi créé na ko fi jamono yi nekk ci ko kujje gi jamonoy Ousmane Sonko ngi nekk ci opposition bi ñu falu ñu ne lekk comme falu na dañuy maintenir même attaque yi hmm, d' accord na d' accord na attaque yi mais par exemple boo demee nag ba bëgg a franchir le Rubicon wax loo xamante ne nii leer na la ni yow lii suñu la tegee. mënuloo ko leeral mais bu boobaa buñ la arrêté nit ñi sa benn naataango wala sa benn confrère bu mu taxaw fële di wax naan liberté de la presse parce que yenn yi bu yàggee dañuy xam ne dootul nekk wàllu liggéey mais en lay doon moom na ko beneen bi ci topp wax na ci dossier Prodac bi nee liñ ko li ko xañoon mu bokk candidature am dossier boobu ñëwoon ba léegi fi mu toll nii ngi ci loxoom léegi nag sénégalais yi ñu ngi ciy xaar ci xaar justice joxe ci ay leeral ñu ngi ciy xaar justice joxe ci ay leeral mu mel ne rek maanaam suñ réew mi euh, boo nekkee ci kujje gi bu la yoon buggee teg loxo daf lay tegloxo loxo yoon bu la buggee xañ yu bëri daf la koy xañ dafa mel ne loolu la ci wax.